si kaw point bi waaw. waaw Sane waaw. Thank you. présidente bi yow. man présidente des femmes travailleuses nationales. du ko defee dañ jox suñu yaay ji mu bàyyi ko mu présenté wu mu mu daal di wax tey si bis bi bisimilah. waaw maa ngi tudd Adja Diop Sibey euh, di présidente nationale euh, des femmes travailleuses du SINAS Sénégal national des artisans du Sénégal.

ka tey na ni soog a dugg mais bi ñu ñëwee que leen fi fekk ak artisan yi ay nunu jëlee que premier mai bi ak syndicat bi xa ah, vraiment que sunu xol seet na wax xam nan rek que les les artisans du Sénégal wa gëm nañu que syndicat nag xam nañu que syndicat bi mooy buntu bi nga xam ne ah nag ak ah, comme ëpp nañu ko si côté bu nekk que mënu ko fexe ka ba boy a ah, ñu ñëw si syndicat bi rek pour mu boy waaw ndax syndicat ndax pour na artisanat dafa dafa nekk pour lu transversal tey ak ñu bari xamuñu ko que moo tax ñun ñu ñëw dugg ci syndicat bi pour affilié wu ak ci CNTS pour mun li nga xam ne moo nu moo nu naqari ci biir artisanat ak yi nga xam ne bëgg nañ ko revendiquer mu nekk suñu buntukaay ñu revendiquer ci. ba ñëwee CNTS yaatal nañ leen liggéey bi mu ngeen ñëwee CNTS yéen ñi ngeen yor artisanat ndax yaatal nañ leen daal. waaw bi ñu ñëwee nag dañu yaatal bu ñu ñëwee dañu yaatal Mody Guiro secrétaire général camarade ak Mody Guiro ka ni mu nu yaatalee sax ka yeneen central a dañuy wax a dañu beral dañu beral moom que vraiment lépp loo xam ne que mooy suñu wareef rek que jox nañu ko mu bii jox nañ ba mu doy yaatal nañu fa nañ defee suñuy réunion fa nañ defee yëpp porte nañ tam suñuy revendication waaw ñu ciy gërëm nag ka moo di gërëm baax di gërëm euh, kii nga xam ne que mooy Ndiouga Wade mi nga xam ne que moo di gërëm que mooy sunu buntu ci biir synthèse bon am nañu bu gërëm ak sant ak présidente nationale bi nga xam ne tey jii ah ko mooy Aïssatou Touré ni mënoo yaatalee sax ko kenn mënu ko wax waaw jaatal nañu war nañu bunt yi war nañu yëpp dinañ ànd ak ñoom ko liggéey fa ànd ak ñoom ko porté ko suñuy revendication macha allah yow jërëjëf. merci. asalaamaaleykum waa Capa TV ànd ak yéen si premier mai bi ñëwoon fii si place de l'Obélisque ànd ak ànd si seen bi premier mai bi waa coalition. secrétaire général syndicat du Sénégal ay ak waa TES ñëwoon di leen soutenir léegi nag waa kii euh, Patisen dañaa bëggoon a jàllale benn message di di ñaxtu leen metti leen liggéey du ko defee dañuy jox délégué bi jiite liggéey bi mu sant ay kàddu sëñ bi bisimilah naka la. waaw ku baax ñoo ngi lay nuyu di la sant di woote suñu mbokk sénégalais aujourd'hui on est venu le premier battre le macadam concernant les contrats de travail, les conditions de travail des Sénégalais. Donc ils vivent dans les entreprises privées. Aujourd'hui, nous, représentons dignement la Patissène. Moi qui vous parle, je suis le président du collectif des journaliers de la Patissène. Et ma botte, c'est mon délégué, vraiment, à chaque fois, nous sommes pour conditions journaliers nationales au Sénégal. Nous sommes battre le macadam avec nous, partager avec nous nos souffrances par rapport à nos conditions de travail man may président bi ki di secrétaire général bi ki di vice président wu collectif wu journalier yi duñ def lu xelal suñuy délégué yi nga xam à chaque fois ñom ñoy xeex ak ñun ñu jox leen ñoom it ñu sandi ci par rapport ak suñuy condition de travail au niveau national. léegi la mo leen mettre sen sen ci wàllu liggéey bi. wa lu ñu mettre ci yu liggéeyu Patisen may ay journalier yi nga xamante ne dinañ def Pakistan 5 ans journalier li nga xam amul fenn dans le code de travail.

waaw maa ngi nuyu ñëpp d' abord je me présente euh, El Hadji Magnan Diène je suis le secrétaire général du collège des délégués de Patisen macha allah léegi ñoom dañoo dañoo am lu leen lu leen métti si liggéey bi day nekk ay 5 ans yoo xam ne ay journalier lañ nekk si usine bi te amuñu contrat nekkuñu si ay conditions yu baax loolu loo si mën a effectivement comme ni ma ko waxee euh, dañu nekk dans une phase boo xam ne bi nous sommes tenus de les accompagner dans la mesure où euh, au niveau même de l'entreprise, l' entreprise dañu traversé d'énormes difficultés. Euh, euh, c'est une condition c'est une condition vraiment très précaire Bon, ne serait-ce que une euh, protection au niveau de comme par exemple le plus de sécurité sociale ça laisse beaucoup à désirer parce que des fois nous am des gens qui en cours de route ils sont victimes d'accidents alors que le code ne prévoit pas que nous jël en charge nous sommes des biir entreprise bi rek lañ donc mu sommes ay yoo qui ne des ak dañ ko accompagner les dans le bon sens afin que nous trouvions une situation heureuse pour l'avènement code bi nga de toutes les façons on a prévu de défendre pour le changement du code qui va venir pour que nous vraiment un statut vraiment bu par parce qu'ils vivent dans wa ma ngi tudd Adja Diop Sibéy di euh, présidente nationale euh, des femmes travailleuses du SINAS syndicat national des artisans du Sénégal. yaa booy tay bés bi no ko gisee ak lan lan moo la lan moo la si soxal ak ak ak la mo la métti tey. waaw bés bi na kon ñun ko gisee gis nañu tay di nak tay moy sunu première euh, journée boo xam ne ñu ngi koy def ci

ah ñu ñëw si syndicat bi rek pour mu booy waaw ndax syndicat ndax pour na artisanat dafa dafa nekk pour lu transversal te ñu bari xamuñu ko que loolu moo tax ñun ñu ñëw dugg si syndicat bi pour affilié wu ak si CNTS pour mun li nga xam ne moonu moonu naqari si biir artisanat ak yi nga xam ne bëgg nañ ko revendiquer mu nekk suñu buntukaay ñu revendiquer ko si. ba ñëwee CNTS yaatal nañ leen liggéey bi ma ngeen ñëwee CNTS yéen ñi ngeen yor artisanat ndax yaatal nañ leen daal. waaw bi ñu ñëwee nag dañu yaatal bu ñu ñëwee dañu yaatal Mody Guiro secrétaire général camarade ak Mody Guiro que ni mu nu yaatalee sax ka yeneen central ak dañuy wax ak dañu beral dañu beral moom que vraiment lépp loo xam ne que mooy suñu wareef rek que jox nañu ko mu bii jox nañ ba mu doy yaatal nañu fa nañ defee suñuy réunion fa nañ defee yëpp porte nañ tam suñuy revendication waaw ñu ciy gërëm nag euh, que Mody Guiro baax di gërëm euh, kii yaa xam ne que mooy Ndiouga Wade mi nga xam ne ak moo di gërëm ko mooy sunu buntu ci biir synthèse bon am nañu bu gërëm ak sant ak présidente que national bi nga xam ne tey jii ah que mooy Aïssatou Touré que ni munoo yaatalee sax waaye kenn mënu ko wax waaw jaatal nañu war nañu bunt yi war nañu yëpp dinañ ànd ak ñoom ko liggéey fa ànd ak ñoom ko porté ko suñuy revendication macha allah yow jërëjëf merci Sénat su ko defee bu ñu si bisu premier mai waaw man maa ngi tudd Mor Sow secrétaire général SYNAS syndicat national des artisans du Sénégal waaw tey jii dafa nekk euh, bés bu am solo ci ñun parce que syndicat national des artisans du Sénégal bi ñu ko taxawalee ñu jiital ma ci ma nekk secrétaire général bi ñu ngi door a ci premier mai dañ ko rek gars di wax premier mai. mais participation bi ñu ci def lu am solo la c'est-à-dire démonstration de force la pour wane les centrales syndicales yi bi nga xam ne moom lañ bokk rawatina muy CNTS bu Modou Guiro wax dëgg yàlla mooy centrale bi nga xam ne moo ëpp doole ñun artisan rek li ñu indi ci wàllum syndicat mooy euh, gouvernement bi am na effort yu bëri yu mu def ci secteur bi dañ koy nangu lu mel ni ADPME lu mel ni DER 3FPT ñu ngi def ay effort yu bëree bëri mais dañoo bëgg ñu gën ko yokk. beneen tam surtout nag dañoo soxla couverture maladie dañ ko soxla accès au foncier maanaam am ay dëkk dëkkuwaay dañ koo soxla mais du tere aussi ñu rafetlu garage mécanicien yi nga ne président defal na ko jar ñaañu war leen a jox clé yi suba dañ koy rafetlu mais nag dañ koy ñaan it gën a yaatal ndax artisan itam war nañ mën a ay dëkkuwaay 100000 logements yi war nañ ci mën xam ne day yomb daal donc loolu rek laa amul lu ma si wax wa salaam. macha allah Mor Sow kàddu yi am na solo